ba lu bari ci ay naa leen dikke di joor dikke leen càmmoñ dikke leen kanam ginnaaw maa ngi leen waatal ne yow yàlla feeg ruu mi ngi daw ci ñoom ba di leen mooy loo yàlla suñu borom ne ko fa wa hissati wa jalaali yi mais maa ngi wàtt sama màgg ak sama tedd nga feeg ñu may jéggulu ba di leen jéggal iblis meew génn mënatul dugg àjjana ba yaa ngi benn bis rek benn picc bu ñuy wax oddu oddu ñu ko wax jaamu jóob daal di génn mu ne ko man daal ñu may génn àjjana xale bu baax bëgg ne ko àjjana daf maa yëgul ma bëgg nga duggalaat man na ci malaaka koromu yoon yi laa bokk moo tax wax lu dul dëgg arab la mu wax mu ci ca malaaka koromu yoon laa bokk bi may génni bëgg dëgg àjjana daf maa yëgul ma bëgg nga duggalaat ma saamu yëg picc bi ne ko mën attanu wala ba ñu la yóbbu waaye mën naa la woowal jaan mu dem wooy jaan téeri nañ jaan ba mu dikkee àjjana yet waram suñ ay tànk yu bari la waaye toog yaa tax suñu borom wekki tànk ya muy dàkku ba mu ñëwee nag attanu la iblis ni ko man naa ma soppali ngelaw dugg ci yow ba mu soppali ko ngelaw dugg ci jaan la wàcc àjjana bàyyi nangar ci jaan daal di yuuxu nag Adama ak Awa ñëw dañuy wax magatum yoo gi lu xew fii dëkkub jàmm la lu waral sa jooy yi muy leen daaw la xew fañ def réunion falaa ko jéggi moom laa leen di yëgal ci garab gi ngeen bañ a lekk su ngeen ci lekkul léegi ngeen génn a xam ngeen doomu aadama mos lu neex ci bakkanam nga bàyyi loo ko ko la ko lu ne ah daal di dem nag kat boobu la wax xawaani aadama muy jëkkëram man damay lekk ci garab gi de ma ne ko suñu borom dana ko tere bu ko lekk fa la jigéen jógee